salaamaaleykum àddina salaamaaleykum suñu mbokk internet yi Tala Prod di leen demal ci événement yoo xamante ne yu am am am solo la tey nag ñu ñëw fii nga xamante ne nii mooy grand théâtre dootuñu ko présenté ci kenn gis ngeen nii moo nekk sama ginnaaw gis ngeen nit ñi fi nekk tey ki aye mooy doomu Tëngéej tey ki aye mooy doomu Rufisque kooku nag mooy doomu banlieusard bi kooku la ñuy dooleel kookoy doomu lébu yi muy góor gi njaay góor gi njaay nag ku ne xam na ko ci wayam ku ne xam na ko xam nañ ko ci talent wam ci wàllum way mu def fi récemment clip bu doy doy waar way ci lébu yi di wane moom li mu doon ñëw nag dippee ko li nga xamante ne ni muy soiréem bi lakk yabooy moom dafa bàyyi jën yëpp bàyyi na ñoom ginaaru géej bàyyi na ñoom ñoom sëdda ñoom yoof coof autant pour moi ñëw ci yabooy yabooy nag foo ko déggee xam ne lébu yee ko moom ba tax na tey euh, temu su euh, soirée bi lakk yabooy la ko tuddee xëy na nag ci kanam dinañ gis si biir scène bi ay lakk yabooy xëy na dinañ ko gis fii nga xamante ne mooy porte grand chaque année nii lay ñëwee day am thème bu muy teg euh, ci soirée bii nag mooy deuxième année bi fii ci grand théâtre di xool ba xam aussi dina mel comme ni meloon daaw ndax dina fees ndax dina ko assurer incha allah mais balaa boobu ñu won leen avant goût li nga xamante ni moo nekk suñu ginnaaw muy rang bi métti na torop heure bi jot na mais kenn dugagul kenn xamul lu tax Talla jëlal ma gars yi sañ-sañ yi gars yi def nañ ba mu baax. waa doomu Tëngéej ñëw nañ njege njaay yee ngi fi 4x4 yee ngi fi euh, car rapide yi sax defe naa ñi ngi fi charrette yeeg loo xalaat ni mi ngi daw rek mi ngi fi li ñu def nag mooy wan leen li nga xamante ne mooy li nekk Grand Théâtre ambiance beeg yëpp mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee woon ñi ngi fii nga xamante ne mooy biir Grand Théâtre fekk nañ fi ambiance yi waaye aussi fekk nañ fi ñi nga xamante ne ñooy artistes yi artistes yi nag du ñu mag ñi rek ñoo fi nekk am na ñoo xamante ne ñu ngi soog a door am na koo xamante ni mi ngi sama wet ñu koy wax euh, Raan moom nag moo nar a def li nga xamante ni mooy première partie bi Raan salaamaaleykum. waa soxna si na nga def ça sant yàlla bu wér. waaw ñu ngi ziar bu baax a baax yéen waa Tala TV. Mm-hmm. waaw ñu ngi leen di ziar di bége waaw liggéey bi rafet na kontaan nañ trop ndax événement go moom wax dëgg yàlla ñun ñëpp dañ ci war a jàpp ah ñuy ay jeune talent di def ay produits di kii kon dafay rafet lu mel ni ñu ñëw wane suñu talent wane suñu bopp. waaw moo war a ñëw def première partie bi léegi nii jaxase rajaxe. est-ce que pare nga pour def première partie grand théâtre dafa rëy de. waaw no c'est le maire. Hmm. ren c'est maa ngi ñëw léegi nii te su ma ñëwee gars yi xam ne yegg si naa. jeex na kon à suivre am na keneen koo xam ne nag mooy Babacar Beuz waaw kooku moom amul ku koy gis te doo ko jox sa micro mu wax. Euh, teewaay bi fii dara lu dul peut-être acte de présence bi mu war que Gorgui Ndiaye suñu grand la yàgg na xam mu organiser daaw mu réussir ren nag mu organiser. indi thème muy lakk jën te képp ku dégg lakk jën nga xam ne loolu lépp. waaw ani yaboo yi. non xaaral la lépp surprise la. dara jël dara essayé gars yi ñu ngi ñu ngi defar marinade bi. looloo am su yow bii nii nga def yow laay bañ nga naan. loo xam tey ci soirée bi yaay. waaw di ñaan ci yàlla ci barke ci barke sama doom barke seen barke si damay ñaan bisim bii yàlla na sax yàlla na ko yàlla jàpp yàlla na ci. Ndiaye nag maa bàyyi maa wayandoo noo dëkk.

Gorgui Ndiaye nag artiste àdduna bi yëpp la parce que là boo gisee fii nu mu mel ak Tëngéej nu mu mel nga xam ne góor gi njaay liggéey na du tey jiitu na juddoom quoi c'est-à-dire que lui avant lui papaam ak ñe ak maamam liggéey nañ ak lébu yi ce qui fait que Gorgui Ndiaye su ootee rek lébu yëpp dañuy mobiliser wu. Gorgui dafa tabee yaru te ku mu gis dina la jox cër dina toog waxtaan te foo ko soxlaa mu ñëw looloo tax si boppam bu xewlee ñëpp ñàkk dañ ne bu bëggee ku yëg daanu waaw. imagine soble ba ñorul nga def ca lu mu tuddati mutaar ko kaani ba. waaw léeg-léeg lakk yaa may maaleykum kii nag artiste la boo xamante ne nii ci culture bi lañ ko xamee maanaam milieu théâtre bi muy def loo xamante ne lu doy waar la nekk kàngam ci wàllum théâtre ma di ko nuyu di ko ziyaar maa lay siyaar di leen bëggee bu baax baax baax baax. ni nga def tey ci grand théâtre bi garaaw na de. noo xam nga booy lakk jën lu weex ngay sol pour mu mu ñuul <laughs> na ñuul kuk. taq fii taq fii xam nga et puis góor moo ko waral. Mhm. Euh, góor gi Ndiaye c'est une fierté de Rufisque ñun ci wàllu yu ñu yëngu muy wàllu théâtre moom noonu la ciy yëngoo ci wàllu musique ba pare jox ko cër am ci fu ko yóbbu donc bu xewle tey ñun dañuy bàyyi lépp lu ñu doon def ñëw pour go waxuma sax wàllu Rufisque Rufisquité boobu mais go dem na ba ak mbokk sax dugg dem na ba cofeel dugg dem na ba reconnaissance dugg sama diggante ak moom kon lépp lu muy xewle ñun dañu war a ñëw teew taxaw. sargal ko jox ko cër waaw vraiment. kon léegi yow alab lebu nga. non par force amab lebu de ko a ah, rafet a ah, mën a fecc a ah, mën a bes ay doom yow mënoo boobu demal demal a rafet a mën a fecc a mën a bay bes ay doom <laughs> aja aja aja <laughs> allez merci. merci <laughs> niñ fi fekkee ñi nga xamante ne ni ñooy artistes yi. artistes yi nag dañoo bëri façon gis naa léegi benn théâtre kat waaye gisaat naa beneen théâtre kat mais moom dafa gën a garaaw ndax moom lébu la tudd lébu da lañ ko xamee waaw te mbir waa lébu yi ñoo woote fii nga xam ne mooy grand théâtre waaw nun nag ay lébu piir lan ay lébu piir waaw du pire ay lébu pire <laughs> waaw xam nga maa ngi nuyu ñëpp nag di sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax tey jii suma doomu ndey moo aye muy góor gi njaay te ba aye ñun waa Tëngéej nag danoo bàyyee ko màbba ko fàq rek ñëw jëm si moom waaw ñëw rek tey dajja ko tey nag moom dama ne la tey dama ne xoolal ku yebu rek ku ci am ab jaal demal poose ka ndax xam naa ne tey jii la nit di ree kase am nag tànk yu métti wala tànk ya la ruux toogal bañ a fecc ndax fii moom tànk ya dam ma gis na ma ko fi tànk yu wëng-wëng gis na ma ko fi lane gis na bopp bu naan wëng tamit gis na ma ko fi kon nag bés bii tey góor gi njaay la te dama ne tey dara du sedda dara dara ñu som nous sommes des coxocee nous sommes des Rufisquois waaw kon nag dama ne la ah, <laughs> tëgéej la tey nag fii la fii lay xoyom xoyomee fii lay mbugum mbugumee fii la lépp di tojee dama ne la tey jii ah non may too sonnal faale madun binta faale madun faale magi talbe seydil aboubacar si malik bi ana warta njeeg kuy doomi te njeeg yëngutul ma wayal sama mbàjjin booy monument la ci réew mi sag la ci réew bàjjen la baax loolu barfakal la macha allah jërëjëf jëf kontaan naa. bàjjen bi ma la bàyyi woon nga dem na day weer merci beaucoup ñu tàcc ko bu baax baax n'est-ce pas te am na yeneen yu mel ni ci biir yu am solo Babacar maa ngi leen nuyu baax a baax maa ngi ziar ak kon Ndiaye suñu sœur suñu xarit ñu koy ziar ñu ko nuyu bu baax a baax baax alors est-ce que Maguette neex na leen. dama bëgg a dégg waa walaay ni kenn bañu ko est-ce que leen est-ce que Maguette neexu leen teg leen seen loxo foofu tuuti rek xaadim ñëw xaadim temps ñu tàcc ko bu baax a baax a baax léegi nag am tukulóor yi léegi bàyyi yaay dama koy wax ci tukulóor wax ko ci joolaa wax ko ci français kuy tukulóor waxal wooyi so siiri lu mu la ñaaral te accu baabe ne nangu neene saagor kawaade yi maa ko ñum na ñum na e ana tukulóor yi ana joolaa yi so siiri lu mu la ñaaral o kat baamoone o kat e ñaamoone nanoo sang na maa nge ay jàllax jàllax merci beaucoup ñu tàcc ko bu baax baax a baax bu baax a baax a baax a que wuy si ngeen góor gi Njaay technicien dama bëgg salle bi leer naa ni ma xool ndax waa Tëngéej wuy si nañ gi Njaay waa Mbuur a ngi fi xaaral ma yër waa Tëngéej xam ana waa Tëngéej dama bëgg salle bi leer nañ ma xoolal waa Tëngéej waa Tëngéej ana ngeen waa déggal lii déggal lii wane leen seen bopp waay ah ay eh, leer na ba pare leer na leer na ba pare alors sans plus tarder xamoon fi nee na xalaas waaye kii Fatou xalaas la tudd xale bu joŋe na nañ ko tàcc bu baax baax a baax wala boobu mu tàcc ko tàcc yu joŋe xam ngeen tàcc yu joŋe lu muy def da lam sax di ko tàcc na ñëpp lamsal ñu tàccu Fatou Xalaas

ana ñaarale ana. gis naa façon bu nekk waaye gis ko mel ni yaa. keroog ba ma la ma gaañ fu ma jaar wax la ko. may ko loxo bu baax góor gi muub Njaay la ñuy woowe baayam Adja Kole Njaay la ñuy woowe yaayam góor gi Njaay sama je ana waa ta jeejoo dëkk fekk Njaay atuman Njaay seen loxo ca kaw may xool sama baay feete te lay ay waay soppe lool dund daylu waay awa jom la ñuy sa yaay ma bëgg

Ki da bokk ci Tëngéej ki da bokk ci suñu dund ki dafa bokk ci suñuy soppe doon suñu soppe doon soppe doon soppe yi ñi ci des doon soppe waa réew mi ma bëgg ñu tàcc ko bu baax ci nga bokk taxawal fii këri kaw këri suuf këri kaw këri suuf vous êtes nos amis këri kaw këri suuf Rufisque c'est chez nous

nga xam ni ndakaaru ñan ñoo ko moom ndakaaru ñu ko moom ku yaatal ñi ci ku ubbil ñi ci kon ubbil leen ba rido yi bu ko defee góor gi ko alias Go daal di si te daal di triompher lébu daal di triompher rido s'il vous plaît fajar maam saa saa gi man naka jekk xam bu ma leen gisee sama gerte ko du yàlla ana xale lekk gerte fajar Ndar gu Ndaw Dànku Nord Dànku Sud Saint-Louis Thiawlé Guendal Colobane mën nañ leen mën seen akwaay ak si lañ gaaru technique njëjëm këri suuf këri kaw Ndar gu Ndaw Dànku Nord Dànku Sud Saint-Louis Thiawlé Guendal Colobane mën nañ leen mën seen akwaay ak si lañ gaaru technique ñu jëm kër suuf këri kaw ndar gu ndaw daan gu noonu daan sud Saint-Touba Thiawlène Kendal Colobane mën nañ gën mën seen ak Sénégal tënkee internet ndax sama yaay ma wut dërëm baay bu baax te donc li yam nit yi lu mu am yóbbu ko to